xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa haajat xasaayidi ya qalba kulli man lahu saadatan walin xaadal aman asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk taalibe yi di leen siyaar bu baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou kenn ku ne xam taxawaayam ak pastifam ci liggéey bi sëñ bi ni nga ko di fii bi ñu xëyee bi ñu sëlmalee tisbaar bi ñu sëlmalee fajar ci lañ tàmbali liggéey bi ni ñu ko baaxoo daan defee sëñ Abdoulaye Touré ak euh, sëñ Ibrahima Gueye ñoom ñu ubbi jotaay bi bi ñu noppee it xam nga ne kuréel foo sëy ni bi nga xam ne mu baaxoo di jàng ma da foo sëy ni ñoom it ñu ñëw feñal seen yéene bi ñu ñu def méga kuréel boobu ak léegi nag la des mooy kuréel yi ñu ngi feñal seen yéene kuréel yi it xam nga ne raison yi daanaka mën naa ne raison bu ci góor góorgóorlu nañ ba am kuréel gu la teewal fii loolu ci liggéeyu sëriñ bi ak yaatal ba bëgg rek kenn ku nekk sa bopp ci liggéey bi wax dëgg bañ ko tàmbalee léegi nag amaguñ ci benn jafe ndax kuréel yi di ci gënoon a jafee ren moom lañ def muy dañoo fexe ba ñëwandoo ñoom ñëpp te loolu defe naa ñaanoon naa ko te loolu ñun mooy gën a yombal sunu liggéey loolu lépp it nag li ko waral maanaam mooy commission bi nga xam ne ci lañ tënku te tënk liggéey bi wax dëgg yàlla liggéey nañ ci liggéey bu rafet bu am solo boo xam ne loo tax ñoo ñu koo jekku wàllu njàngeen wi it góorgóorlu woon nañ ci ndax avant muy agsi kuréel gu ci ne yónnee woon nañu programme te waxoon nañ leen ne leen nañu xam ne barab bi ñu jàngee am na lu mu laaj kon lépp loo xam ne lu fay def la lu sel la war doon kon loola it kuréel yi ñu ngi ci góorgóorlu bañ toogee léegi wax dëgg yàlla ku fi toog xam ne njàng mi lépp njàngam cosaan la kon nag loolu lépp ñu ngi ciy ñaanal bu baax Cheikh Ahmadou Mountakha bis bu tedd bii jàpp naa ne fu waaye mën a nekk war nga ko gën a ñaanal ndax lim ciy def lépp jubluwu ci dara lu la mi def yëpp loolu rek moo jubaloo mooy jubluwaayu Cheikh Ahmadou Mountakha bu ko defee nag ñii nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi muy sëriñ Amsatou Mbacké ak sëriñ Youssou Diop kenn ku ne xam na ne li bis bii avant muy ñëw taxawaay yu mat sëkk def nañ ko ci ba ko fi teew ku nekk xam ne li ci war lépp ñoom def nañ ko kon ñoom it ñi ngi leen di jaajëfal te leen ñaanal gën a ñaan bu baax a baax ñi seqal la gi wax dëgg yàlla diggante kuréel yi même ñi nga xam ne ñu sax jànguñu si barab bii ñoom ñëpp mel na ne jàng nañ fi ndax ñoom ñi fi jàng ñoo leen yóbbaale koo ci woo ku nekk da lay wax ne la sëriñ bi genn kuréel ku fa jàng ko ne yóbbaale na kuréel yëpp ndax barab yi wër jumaa ji fépp organisé nañ ko ba ay kuréel ya nga fa di jàng tey masalan moo jëloon waa Touba kuréel na ci Touba lu ci ëpp ñuy kër sëñ Touba gii sës jumaa ji dafa jàng boo jëlee Kawlax noonu la demee nga jël Tiwaawan noonu la demee dégg nga nga jël ndakaaru noon la demee nga jël ndar ak Louga ñu ngi ko mboolem ñëpp kenn ku ci wutal nañ sab dal sa bopp liggéey ba bi nos nañ ko nosin woo xam ne fenn fu ne bu njulee fajar la kuréel tàmbali ba ba ñuy ñaan tëkkusaan kuréel loolu yëkkati jotaay kon nag loolu ab liggéey la bu boo xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi ci àndal ci liggéey bi ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm jërëjëf xam naa fi ñuy jeexale kon mel na ne bis bi mën nañ cee yóbbale mën nañ cee yóbbale genn déggoo genn ànd genn bennoo goo xam ne ni sëñ bi woote na ko ñu gis ko fi waaye bu ñu demee itam ca daara ya ak kër ya war a wutal war war a loolu. waaw loolu xam nga dëgg-dëgg mooy bëgg-bëggu Cheikh Ahmadou Mountakha Cheikh Ahmadou Mountakha dafa bëgg mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngu ci xasiida ñoom ñëpp doon benn bëgg-bëggam yi mu ci xasiida yi mën naa ne bu sañoon jullit yëpp doon benn loolu mooy bëgg-bëggu Cheikh Ahmadou Mountakha waaye nag rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo yëngu ci xasiida di def njàngum kuréel ak njàngum ak njàngum durus amul séparation jotaay bi boo fi tey du mënoo ràññeetle kuréel gi ak kuréel gee ndax amul présentation maanaam kuréel gi day ñëw bu jeexalee ndax ñaari gabaat nañ ko def comme ni ñu ko lëggee bu genn kuréel jeexale genn kuréel toog mënoo xamee kuréel genn genn parce que amul présentation ñu la gii fee la jóge wala gee fee la jóge waaye nag seen biir moom am na yëg-yëg bu wóor ci ne kuréel gi ba def sàngam la jóge kon nag liggéey boobu moom suñ mun taxaa moom moo ko def wax dëgg yàlla loolu liggéey la bu rëy rëy lim ñu war a jàngalaat nag nun ñëpp rawatina nun ñi yëngu ci wàllu xasida mooy nañ benn la suñu bopp doon benn di yëkkatandoo jegandoo lu waay nekk mel na ñëpp nga ca loolu dëgg-dëgg mooy liggéey bi kon loolu lañ doon soññee ci lépp lu jëm ci wàllu bennoo gi jërëjëf xasaayidi mi mujizaatil muntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa